AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الإله وهو الرحمن والرحيم انقاد للأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا العدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي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 bi leen baaxoo andil bis bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak tawfiixam seen mbokk Saliou Sy di leen ko defal ñoo ngi àddoo fii ci maxat xikmatul yawmi li tarbiyal islamiya wa taalim markaz Cheikh Mouhamadul Mourtada nekk ci cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 tey ñu fa seen yéene andil xikma bu amati solo ti mooy wéyale mbégteem safar sunu mbégteem safar tey ñu and ci solos uh, safar ak solos cant itam safar day weer wu ama am solo ci wàllu yi wàllu yi bare bare bare bare suñu borom tabaaraka wa taala ci la leen jox maqama ci la leen jox daraja uh, looloo tax nag suñu borom tabaaraka wa taala defal ci Cheikhul Xadim sunu yaakaar bis bu rëy bii nga xam ne nii uh, ci la ko defal lépp defal ñu ci lépp ñu ñi ko yaakaar àdduna alaaxira ba tax euh, sant gi mu ci war a sant sunu borom tabaaraka wa taala mu lott ci tax mu woote liggéeyub cant ñu ñëw santle ko damay wax nag ku la defal lépp sant la lu lenn boo dee askoro war caa góorgóorlu te sëñ Tuubaa ñu defal lépp te mas a santaane lu ñu santale ko sunu borom tabaaraka wa taala mooy bis bi nga xam ne ni ci la génnoon liggéey li boroomam liggéey la yonante bi sallallahu alayhi wa ba liggéey ba àgg mu jot ca pay ga gis pay ga mu ëpp ko ëpp ñooñam xarajtu yowma sabti thamina asar li xidmatil muxtaar fi soxri sant nag dafa am solo lool te am cëslaay ci lislaam ndax sant mooy mooy dëggi dëggi jege yàlla tabaraka wa taala waaye ñàkk sant gis nga sax doole ji sant am tax na saa bu suñu borom tuddee sant ci alxuraan daf koy dendale ak weddi fi na ñàkk sant weddi la kon nga xam ne ni sant lu am solo la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne attaxaddus bi nixmatillahi shukrun wa tarkuhu kufr sant xéewal yi la yàlla defal euh, nee na waxtaanee xéewal yi la yàlla defal sant la waaye ñàkk gee waxtaanee ak weddi la te cant mooy li gën a jafe ci jaamu yàlla yi iblis sax ba muy juyoo ak boroomam ci ndigal mel ni lu koy defiyee bokk na ci lam ko ñaan ne ko dama bëggoon nga bàyyi ma fi may may des di di dund li feek doomu aadamaa ngi ci kaw suuf suñ boroom daal di ko koy may mu xamal ko ne nag dana ganaloon nag ci saw yoon ba duñ agsi ci yow ci sa yoonu yërmande duñ agsi ni ma koy defee nag moom mooy danaa leen galanu danaa leen gatandu ci seen kanam seen gannaaw seen ndeyjoor seen càmmoñ danaa feex ba daal li ëpp ci ñoom duñ doon ay sant kat kon foofu rek la mën a joggi ngir eh, ànd ak lu bari ci doomu aadama yi dem safara yàlla na ci yàlla musal moo tax mu ne ko wala tajidu aksarahum shakirin bu suñu borom tudd nag ci alxuraan tuddee ko sant ba mu koy dendaleel wedd lay doon washkuru li lum ci teg wala takfuruun wa man shakara fa innama yashkuru nafsi lum ci teg wa kafara la in shakartum la azidannakum luñ ci teg wala in kafartum kon nga xam ne ni ñàkk sant yàlla na ci la musal weddi yàlla la am na ñaar ñu ñëw ci Serigne Touba di ko siyaara di jàmmanteeg moom kenn ki bu ne ko na nga def mu ne ko xanaa di sant rek mbàkke hmm, kenn ki bu ne ko na nga mu ne ko ah xanaa jamono yu metti rek mbàkke ñuy muñ kiy sant saa bu ko sëñ bi neen na nga def mu ne ko sant mu yëkkati dara jox ko loolu yàgg kii muñ ne ko ah, man de Mbàkke maag di woo fi te gis naa nga koy dolli rek mu ne ko moom day sant moo tax kuy sant la ñuy dolli te loolu dégub suñu borom la ci alxuraan la in shakartum la azidannakum moo tax Sëñ Tuubaa day wax ne man de suñu borom defal na ma may ab santkat boo xam ne nii ku sori ak weddi laa ci la ma musalee ci lépp luy waral pertaange lillahi shukriya bila kufraani musaanani an kulli si xusraani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 in uridu illa al islaha mastataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim